nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. tur bi nan la. tur bi Bamba lañ koy wax. ban sport ngay def. waaw instant sport bi ñu may def moom lañuy wax MMA bu dee américain yi ñu ngi naan ko MMA yi waaw moom laay pratiquer fii quoi waaw. léegi ñaata at la def wala ñaata weer. ma si duggee léegi yàggul si mois laa si def am naa si benn combat am si benn victoire quoi. waaw. combat bi fan la woon. combat bi si dozo bii la woon sama doo ñoom ñoo ko organisé woon ak benn ma doon xeex ak benn combattant bu ñuy wax Alouz ñu bëri miin nañ ko fii foog naa ne mosul woon am defet avant muy dajeeg man waaye keroog bu mu dajeeg man donte le sama maa ngi doog a commencé ma xeexee combat bi ak expérience yàlla ànd ak man quoi waaw. bi euh, mu toll nii bi ngay dugg ci sport bi nan la la dikkee da jékki-jékki xam ni sa état de forme war nga mën a dugg ci sport bi wala dafa amoon beneen sport boo doon def par rapport ak MMA waa foofu laa jaaree au passage di nuyu ku ñuy wax Major Niang mu nekk caserne Samba Diéry jàlloo waaw moom yàlla dafa dogal dama nekkoon ci moom fekk avant may dem si moom doon naa def taekwondo ma demee si moom def formation garde rapprochée saa bu ñuy def deux à deux samay collègues. ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon promo mu gis détermination bi may àndal ak jom ji may demee si wàllu xeex mu ne ma war ngaa mën a def MMA. te foog naa Togola Moussa Togola Sénégal kenn doonu ko présenté si MMA jaar na si ay loxoom mu ne ma jëlal référence si Togola rek gëm naa ne fu nga bëgg a àgg di fa egg incha allah waaw. sa vision ci lan la fan fan nga séntu ni war nga fa mën a dem. waaw sama vision si MMA nag sori na wax dëgg fa yàll sori na trop. te wax dëgg yàlla ñu ngi am ak ay contact ak ay nit ñi nga xam ne nii jàpp nañ ne war nañ ñoo mën a yóbbu foofu te incha allah li nga xam ne moo koy mottali suñu liggéey la ak suñu gëm-gëm ak suñu fulla ak suñu fayda moo ñu fa yóbbu te ci kàttanu yàlla dinañ fa dem incha allah dari nag des fois booy togg yenn yi mënoo koo wax si yenn presse yi xam nga mais yenn gars yi am na ay champion yu ñu ma gis may liggéeyal te jàpp naa ne ñooñu dinañ ma teg ci yoon incha allah waaw lan ngay wax xale yi nga xamante ni dañoo bëgg sport bi bugg cee dugg ne mais dañu ragal parce que ñu ngi naan en même temps toujours euh, blessure mun na ci am sport bi dafa risqué de trop quoi. waaw dëgg la sport bi dafa risqué de trop loolu laa doon wax gars yi sama premier combat da ngay entraîner trois mois ñëw xeex benn round trois minutes mel ni mosoo entraîner bëri na risque mais li ci ëpp solo rek mooy nit ki nga xam ne mu ngi see dugg mu am gëm-gëm am détermination gëm ne même bu doon football la nekk yombul.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 kon lii day mel ni boo ci nekkee waroo yàkkamti war ngaa mën a nangoo muñ te ànd ak sa jom ak sa fula ak sa fayda pour àgg fi nga jëm parce que jeexaat foo fara doom delloo fa sa loxo mais jeexaat taamool di ko defee ci sa toolu baay làmbal foo dabee sa teraanga mën faa jaamoo yàlla su la fa yàlla bàyyee toog fa ndax loo jege-jege say mbokk te takku woo ku takku teggi la waaye loo sori sori say mbokk boo takkoo ku tekki takku seeg yow waaw jërëjëf ma jaajëfal bu baax. jaajëf kontaan nañ trop. puissance. yàlla bu baax. mbaa ñu ngi sant bu baax. waaye laqatu waa gis nga di maintien rek. yaa ngi sport bu dul làmb lan la. waaw instant bii nii ñu ngi ci MMA bi quoi parce que lépp combat rek ay ñun ay combattant lañ te sport de combat la ñuy suivre waaw di sant yàlla nag di sant yàlla bu baax parce que bi biñ ci duggee am na ñoo xam ne bàyyiwuñu ku ci mel ne sama waa Dozo waa Krav Maga. ñoom Pam Maguette Gueye xam nga ñoom major Souleymane major Pam magget major Mohamed ak waa saal ba yëpp ak ñoom Ibrahima xam nga ñoom Jebel jigéen ñi saal ba ñoom ñëpp gars yi dañ may encourager chaque jour pour ma def MMA te man su ma duggee ci MMA gars yi buñ ma xoolee dinañ xam ndax kii war naa MMA wala warul MMA parce que ay combattant lañ te buñ nekkee ay combattant dañ war a wane bon exemple ba pare dañ war a def li combat di laaj pour bu nekkee sur le terrain ñu xam ne carrément ñii ñu ngi ci affaire bi. yaa xamul yow yaay kan ci ban écurie nga nekk. waaw man la booy Sadio nekkoon écurie Lamsar ah nekk écurie Lamsar xam nga nekk fa nag xaw faa duré tuuti def cinq combats quatre victoires benn défaite. nga daan kan ak Omar Fall Canta Belende Papa Sow Junior ak Zes. la Rouge moo ma daan. kese moo ma daan. te ñu koy sante yàlla nag parce que bu ñu daanoon ba pare toog ci làmb ji amaana dinañ fayu mais daf ñu daan ba pare daw. dafa daw daw dafa daw waaw. ban combat nga mujjee bëre ak kan moo bëre woon grand combat bi. sama combat ak Omar Fall laa mujjee bëre combat spécial journée ngéwél gi alliance biram bulldozer. bulldozer waaw. Sat waaw. waaw sa moromu mbër yi nga xamante ni bëgg nañu dugg ci sport bi mais dañu ragal parce que nee nañ sport bi dafa risqué de trop lan nga leen wax. affaire bi amul risque affaire de combat bëri moo ëpp risque risque yi nekk ci bëri nekkul ci MMA amaana nag am na ci ñoo xam ne dañu ragal am na ci ñoo xam ne dañu ragal ñemewuñu maanaam buñ déggee tur bi MMA tur bi moo rëy mais affaire de combat la rek sport de combat rek comme yeneen sport de combat jaajëf waay waa di nuyu nag waa defal loolu di nuyu nag sama yaay di nuyu sama sama grand frère yi di ñaanal sama papa yàlla yërëm ko xare ko àjjana di nuyu sama doomu nday di nuyu sama doom baay ñëpp xam nga parce que gars yi tamit seetaanuñ ma benn yoon di nuyu sama taaw yaay Baba Sarr di nuyu papa Mamor di nuyu samay copains yi may àndal di nuyu gars yëpp yi aussi ñu ngi may encouragé ñu ngi may jàppale pour ma def ko di nuyu tamit coach yu ñu fekk fii yëpp di nuyu Pérez yi xam nga président MMA bi ñu ngi koy nuyu di nuyu gars yi nekk fii yëpp di représenter MMA bi Sénégal di kontaanee gars yëpp daal. di nuyu maître Ali Sall aussi bu caserne ak sama maître bi ma yor MMA Kayla gars yi aussi kontaan naa ci ñoom trop. jërëjëf jaajëf champion.